internet yéen ñi nga xam ne yéen ñuy gunge ci émission bi nga xam ne mooy xalima bu ñoom Ndeye Ndiaye mu sëñ Fallou balaa ñuy def dara dañ lay bàyyi nga présenté wu bismillah salaamaaleykum askanu Sénégal salaamaaleykum àdduna wërngal këpp kilifa aada kilifa cosaan góor mag ndaw Ndeye Ndiaye Jolof dugg na sa biir kër di la jox loxo bu dee yaay maa ngi lay nuyu bu dee papa tamit maa ngi lay nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci loolu hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu ci seen sago ñi nga xam ne tam caabi ngi ginnaaw yàlla na leen suñu borom génne dañ bañ faa delluwaat ñi xam ne ñooy way dawlu yi yàlla na leen yàlla xaaree aljanna te oyofal suuf ci seen kaw ñi ñu fi bàyyi yàlla suñ borom teg ci loxo suñu àdduna bi suñu senegal àdduna wërngal këpp maa ngi fiy ñaan jàmm te yàlla na ko suñu borom def ci barke Yonent bi ci barke Serigne Fallou mi nga xam ne moom laa yaakaar. Mhm. jërëjëf Ndeye Ndiaye xam nga li waral loolu mm-hmm. loo xam ne daf la feeñu mm-hmm. loo xam ne danga ko fekk ci sa biir biiri famille mm-hmm. il faut que nga wóolu ci sa bopp mu ngi mel ni comme tey jii boo amee tul carrément ba yëg na yow mii am nga tul nga jam sa bopp jam sa bopp jamaat sa bopp yaakaar naa ne boo gisee jaasi waruloo daw looloolu ma waral ma ñeme sama bopp waaye nag lu ma ñeme ñeme sama bopp dama cee féetal la yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ñu sàkk macha allah macha allah tëju gi fu mu nekk nii ñëpp xam nañ ne fu mu nekk nii vingt heures nit ñi tëdd feebar yi dul woon feeñ sax dafa mujjee feeñ ci biir kër a na ñi nga xam ne tey tey ñu ci mel góor gu mënul boppam ak jigéen bi nga xam ne mënul boppam yooyu yëpp ci biir confinement tey moom ban sabab la ci def ak ban naxas la ciy def. Ah, li may wax gars yi rek hmm. dañu wax ne kuy màndi na bu boo jàngee feeñ. li ngay nëbbu ci bitti mhm. boo duggee ci biir kër gi faaw mu génn te ñaare tamit dañuy wax ne li fi maam yi bàyyi woon képp ku ko fi ba tamit yaa ngi bàyyi sa musiba mhm. bu dee ne yàlla suñu borom dañoo jagleel mhm. bu ñu jaaxlee woo ko mu muyu suñu bu ñu ko ñaanee mu may ñu suñu jaaxlee tamit am na feneen fu ñu yàlla suñu borom taf fa nga xam ne bu fa féete woo rek duñu réer duñu jaaxle mooy fan nañu dékk yàlla loxo te yàlla boo koy ñaan ci alxuraan nga koy ñaan li nga xam ne mooy suñu aada tamit di sunguf ak reen suñu jaaxlee tamit nga bëgg mu gaaw lool ci lañ koy jaar yow mi nga xam ne yaay jigéen ji nekk ci biir kër gi di sëy xanaa xamoon ne góor ni muy néewee kàttan jigéen noonu lay néewee kàttan muy man di sama morom jigéen ni muy néewee kàttan noonu la góor di néewee kàttan bul yaakaar na ci góor gi rek la de dafa am ci jigéen ji jigéen ji buy néew kàttan ci ndigg li lay jóge waaw buy jant bi commencé so yaram bi commencé bàyyeeku bu jant bi commencé sax yaram bi commencé bàyyeeku ba guddi gi sori mu def ko tàngaay yaram pour nga mën a dékku sa jëkkër munul nekk ah. ndax ndigg bu nanguwul cër boo ci laal rek bañ na ndax ndigg mooy yaram xoolal ñi nga xam ne dañoo am problème mu ndigg lu damm wala problème mu ndigg lu métti duñ mën a daju bu baax sàkkantuma nag bay nekk ci biir néegu sëy bi mm-hmm. kon foofu loolu dañuy xool rek mm-hmm. ndax dañuy wax ne ku dugg ci néeg mm-hmm. taaluñ ca làmp loo fa fekk rek yaa ko ni tut bu ñu fekkee ne affaire boobu dal na la bu fekkee ne gis nga docteur demal mu xoolal la bu gisul demal ci garabu olof bi di nga am di nga am changement boo xamante ni dina la bett di nga ci gis sa bopp ndax ñaar yu rek moo fi am tubaab olof bi léegi nag bu dee na góor gi la dal danaa man damaa néew kàttan waaw jigéen ji tamit dafa war boppam comme nii tey jii ñu ñu ne jigéen ji mënul am doom dangaa jaase kuy gis sa fóot rek da ngay jur sa doom mm-hmm. bu ñu ko baasee jigéen ji day dal góor gi dal jigéen ji nit ñi néewantee kàttan ci góor ak jigéen noonu la ñuy noonu la ñàkkee ci am doom gi tey bu fekkee ne jigéen ji dafa toog di gis fóotam mu ngi sëy normal amul doom na ñëw ñu defal ko laax bi buñ ko defalee laax bi laax bi ci ci cosaan la ndax lii dugub bi suuna la gis nga lii dugub la mi ngi farax toll nii dugub bu suuna la dugub bi nag dafa ànd ak alxuraan bu ñu ciy boole dafa ànd ak sunko fa ren pour mu gaaw buñ la ko defalee weer boo fóot doo fóotaat ba ci yàlla ànde léegi suñ la ko defalee première course bi yow jigéen ji ñu ubbi sa njurukaay deuxième su ko defee boo xoolee weer bii fóot nga ko weer bii di ñëw bu ci yàlla suñ borom bi ànde doo gisaat sa baax di nga jël sa ëmb doom yaa xam muy góor gi yaa xam muy jigéen ji waaye doom bi moom bu ci yàlla suñ borom bi àndee dina taxaw kon nag néew kàttan boobu ci wàllu feebar bii nga xam ne dugg nañu bañ dañ ñoo tëj ci suñ biir néeg yi. ndax loolu c'est valable ku góor gi ku jigéen ah, ci. ci na xam loolu am solution maanaam. dañ leen di faj ñoom ñaar ñëpp ndax boo yaakaar ne góor gi la mu nekk ci jigéen ji moo tax may man sama bopp. Mhm. du ma liggéeyal ku ma seetut. damaa bëgg nga ñaanal ma te ma seetal gis nga pettaaw yi mhm. yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam moo ko bañ. Mhm. ndax daf ko feeñal pettaaw amul lu mu la mënta wax. lépp lu mu gis ci yow démb ak barki démb ak tay yëpp dala koy firndeel tabarki Serigne Touba mosuma cee seetal nit nga ne man day njaay gis loo ma amul ndax lu ma man la ndaxte yow da nga am confirmation ma la mhm. may nekk xale bu ndaw mhm. mu di ma feeñ di ma feeñ ba ma jur sama ñaareel bu doom mhm. mu fekk si ma ma sànni ko mu ñëwaat ma sànni ko mu ñëwaat ma xam ne lii du asaar lu ma war a dox la suñ jonni yàlla tey nag maa ngi ci ba léegi ma làq sama ñeent fukki kon xam nga du ma ci gan mhm. ku juróom-ñaari at di ci nekk mhm. ba dem ba am sa ñaareel bu doom doog laa feeñu normal nga nekk ci di ci liggéey mhm. kon du gan ci man bu may gëmm sax dama la ciy wax te li ma la ciy wax du dañ rusuma ko ma ci yónnee sa xaalis ma seetal la de waaye lépp lu ma ci wax seedal naa ko sëñ Fall nga teg sa bët ah, am na ñoo xam ne nag dañuy ñu toll nii mm, nga li seet ñëpp laa koy yëgal yëgal de man bëgguma nga di ma seetal naa man ndax am nga jëkkër Ndeye Ndiaye ndax am nga far ku la ubbi képp ku la laaj nga ubbil ko bunt rek am na fu mu jaar gis nga seet boo ko mënee waxal la nga gis waaye bul gëstu doomu aadama bi man lépp lu ma la wax ci sama petaaw yi nekkul lu may toog naan am nga jëkkër am nga kii am nga kële déedéet dama lay wax li ma sama petaaw bi wax ma wax la ko ba dégg ko su nekkee di nga xam bu nekkul di nga xam te wallaay la asim rusuma toog seetal nit te gisuma la ma ñaanal doomu aadama te tegloo ci bët yàlla nag moo man du man de lépp lu ma defal nit nga teg sa bët ba kontaan ba di ma ko wax du ci man yàlla suñu borom la mhm. barke sëriñ Fàllu Mbàkke yàlla la macha allah macha allah mënuñu fay nag te duñu wax ci wàllum lem gi mhm. lem gi moom la <laughs> lem gi moom te nekk ni nga xam ne ay ñoom Massamba ak Awa Awa Demba mhm. ñoo xamante ne fu mu nekk nii xam naa ne lem gi moom war nañ koo ñëw seet xam nga gis nga lem bii li tax gaa yi yittewoo ko xam nga lu ma gën a jaaxal jamono yi ñu toll damay nekk xale bu jigéen ànd ak sama xarit ñi nekk xarit mhm. nekk xarit ba yàlla def maam sëy mhm. yow amagoo sëy waaye ni nga nekkee sama xarit man foog naa ne àdduna du yàgg mukk ba sa xel nekk sama borom kër mhm. nga dem ba ca biir commencé di sëriñtu sama borom kër ba mu topp la waaye gis nga boo jëlee lem bii nga sëy ci sa jëkkër ñu boole ko li muy àndal ba nga def ko ci sa jëkkër xelam dootu nekk ci benn jigéen ba moroode ay ngoro di ci am ah mais lekk lañ ci xam. lem lekk lañ ci xam ah. waaye lem xanaa xamoo fu ko fu ko yamb di jëlee mhm. ba di ko liggéey ba mu nekk lem waaye ñu ne fa ko lem fa ko yamb bay jëlee ba di ko liggéey ba mu nekk lem mhm. noonu koy liggéeyee ba mu nekk diggante góor ak jigéen ba ñu mën a ànd mu neexee comme lem mhm. seen diggante waaw. Ah, euh, xam nga buum yi. fàllay la. fàlle la ñi di ko tuddee poqe mun kon mu ne fàlle ya ñu wàññee ko di ko tuddee poqe comme jël na ñaari turi xam nga pël doomam ñaari tur waaw dama la koy jox na la fàlle ya mm-hmm. dañ ko koy wooyee mm-hmm. ba pare di ko wooyee poqe ya mm-hmm. kon muy ñaari turi pël man tam ma doo nekk doomu pël gis nga su ma defee ci lii nga xam ne moom la ma sama papa jàngal ma ñëw ci lii nga xam ne moom laa ci fekk ci sama yaay képp koo xamante ni bëgg nga lu gaaw a gaaw a gaaw dama lay defal fas bii bu dee na kayit booy lijjanti bu dee na sëy boo soxla la bu dee na dangaa bañ wujju am na jigéen ñoo xam ne bëgguñ wujju jigéen ñoo xam ne wujju dee moo leen gënal ñu am wujju ndax góor ñi kat tey mën nañoo dem takk ñaari jabar waaye ka gën a bees rek lañuy ñuy féetewoo te bëri na ci jamono jii nga yor sa aawa sëy moom lu man ñeent fukki nga tonni ko sànni ko fee moo ko ay doom jël bu bees bi téye ko mm-hmm. ce que boobu neex na ci xol muy man bi sama morom neexut ci xol de mm-hmm. léegi nag nga di ko jànkonteel say doom di am naqar ngay am na naqar mm-hmm. boo gisee ku la jàppale sa jëkkër mu ànd ak yow nekk benn wallaay da nga koy wuti te lu ma man la bu dee na ci alxuraan boo ma ci woy see mu wuy si la ci bu dee na ci sunguf ak reen boo ma ci woy see mu wuy si la ci waaw ñi nga xam ne tamit dañoo déposé ay kayit mënuñoo fexe ba jot ko bu la neexee ñu bind la xaatim bi nga sangoo ko defal la fas bi nga def ko sa ndoom ba nga takk ko foo taxaw di nga am liggéey te foo déposé kay dinañ la si bu ci yàlla suñ borom bi àndee. ah moom nag dafa ànd ak naa la man sama famille ay pël ma sama famille yaay ay te man kaw kaw laa xanaa gisoo sama noppale bi mm-hmm. gis nga li may defal jigéen ñi mm-hmm. dangaa nekk ci sëy bi amuloo ci doom ñëpp di la ko coow. ñëwal ñi def lu noppale ñu may la yàlla suñu borom ñaan ko ci kattanam mu may ñu li nga bëgg ci yow ci sa bopp su ko defee di nga am sa doom mu noppale mm-hmm. soo ko defee lépp loo xam ne naqari woon na la sa àdduna mu nekk sa bànneex te gis nga uh, am doom gi dafa neex mm-hmm. ndax buñ la laaxalee ba nga jël sa ëmb doom amut looy defaat traitement di na saaw may ëmbaat damay dem ñaan ji déedéet dañ lay ubbi bu la neexee soo amee doom ba am ñeenti weer mën nga jëlaat sa ëmb mm-hmm. sa juróom-ñeenti weer sa doom bi nga juddule dina nekk sa juróomi wéeri ëmb kon ko amul lu ñuy demaaka di kat naan damay ñaanlu gis nga liggéey mën nga ko am kawe lool ñëpp di la coow nga xëy xëy commencé di fay comme doom am na waaye ba tey dañ ko def ci fas gii nga xam ne dañ lay defal taal ak matt ak pétrole te buñ la xasee yëkkati ba nga jóg day ànd ak bay rek muslaay te kenn du la wàcc muy ca bureau ba muy ca police nga bëgg muy militaire nga bëgg muy diwaan ñu nga bëgg muy leneen ak leneen rek ba ci jàngale bi mm-hmm. ba tey fas gi dañu ciy jàppale xale yi nga xamante ni dañuy tiit guddi mm-hmm. xale yi nga xam ne dañuy tuur ndox guddi ba ci mag ñi sax dañ koy am mm-hmm. waaye buñ la defalee fas gi bu soobee yàlla lépp lu la métti woon rek dina nekk bànneex waaw. tabaarkalla macha allah Ndeye Ndiaye mu boole ñaar ci nekk jolof jolof macha allah xam-xamam rafet loolu di nekk jigéen tamit di yëngu ci mbir mi di yëngu di yëngu ci wàllum faj aada ak cosaan ak wàllum asrar macha allah. Ndeye Ndiaye ku ko soxla mën nga ko woo ci 77 251 05 70 beneen numéro bi di 77 409. 80 92 boo ñëwee ba ci meeru amoo gàtt bi ci ginnaawam rek jarul sax dama naan xale bu ndaw boo laajte dina dina la di nga gindee bu mu indi la ba ci biir kër gi Ndeye Ndiaye mo suñ Fall askan bi nga xam ne dañ lay namm loolu nag ci Sunugal 24 point net. Mhm. xanaa ñaan jàmm rek jàngor bi nga xam ne dugg nañ ci suñu dëkk bi daal mhm. suñu àddina bi ñaan yàlla yàlla suñu borom génne ko mhm. ñu di ko naan daal koor gi balaa jeex. yàlla na ànd ak moom fax suba set wicc ñu delluwaat ci suñ sago ndax li may wax rek ñun ñëpp tiit nañ waaye comme nit ñuy joxee matuwaay bi rek boo duggee raxasul boo génnee raxasul te ñuy jël suñu masque yi takk ko te ñuy jéem a téye suñu njaboot gi li ñuy tere nañ ko bàyyi xool ne suñu intérêt du intere keneen ndax ki na la kaay wér moo la gën a kaay dee kaay wér moom képp ku la ko wax bëgg na la man de dama ne ñaar yii yow mi nga xam ne yaay jënd sa yére bi jox ma sol ah bëgg nga ma rafet bëgg nga ma yow mi nga xam ne yaa jënd sa ceeb bi jox ma lekk yow bëgguloo ma dee mm-hmm. yow mi nga xam ne yaa ne ma kaay ma faj la ba nga xam ne dara du la jot mm-hmm. ah yow de su ma sañoon tey jii lépp lu ma am di ko joxe yow ci ngay bokk ndax yéene nga ma àdduna ak la ci biir ndax soo amee wér rek ñàkkuloo dara mm-hmm. waaye soo wérut yow mi jigéen ji say famille yëpp feebar nañ soo wéree yow mi nga xam ne yaay góor gi say mbokk yëpp wér nañ kon nag yàlla na yàlla suñu borom def wér ak man ak kattan ak tal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def suñu réew mi daal jàmm lañ ci soxla de yàlla na ko suñu borom indi ci barke Sëriñ Fàllu maa ngi koy ñaanal ñëpp di la ko ñaanal yéen tamit seen seen bii daal yàlla na ko yàlla gën a teg ci kaw ca kanam ndax it diir ba nga xamante ni ñu ngi leen ciy dégg ba léegi gisuñu ci befet jàmm rek lañ ci dégg te jàmm tamit moo ciy am bu ci yàlla ànde jërë jërëjëf